والقلم وما يسطرون eh, sëñ Mbacke muy sëñ Mbacke ak eh, sëñ Mbacke Sourang eh, nuyoowaat mbooloo mi fi nekk yëpp fekk ñu woon suñu nuyoo bu jiitu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ziyaare ñëpp itam waaye di sant itam ci jataay bii di sant jëmm ji nga xam ni moo ko amal di xaadimul xuraan alaaji sëriñ Seck kilifa yi nga xam ni yàlla baaxe nañu leen tey jii ñi fi teewagum ñu ngi ciy jiital cheikh Abdul Ahad ibnu cheikh Mouhamadou Fadal moom rekk buñ ko tuddoon kon mu doy sëkk waaye ay mbokkam ay taalibeem ay wóolëreem ñu bare fekk si nañ ko ci jataay bi sëñ Fallou Mbacke sëñ Alaaji jarbaatu sëñ Mbacke Madina mi ngi ci jataay bi docteur sëñ Xaadim Mbacke mu sëñ Mor Doj mooy mi ngi ci jataay bi euh, sëñ Fallou Galas Mané moom it mi ngi ànd ak délégation mag mi ngi ci jataay bi ànd ak sëñ Modou sëñ Modou Mbacke mu sëñ ma Mare Madame euh, docteur Xaadim Silla moom it mi ngi ci jataay bi xam ngeen ni bés bi bésam la Euh, Léona Niassène délégation bu mag jóge na fa ki nga xam ni moo ko jiite mooy El Hadji Keba Ndiaye imaam sëñ Fadilou taal mi ngi ci jataay bi ak imaam sëñ Ahmad Dame Ndiaye kazalika naka noonu imaam sëñ Cheikh Aw Balla Gueye mi ngi nii ñëw jàkkaar lool ñoom it euh, ñi ngi ci jataay bi ki nga xam ni itam mooy sëñ Alaaji Bousso moom it commerçant mi ngi ci jataay bi sëñ Abdoulaye Dia foofu nag sëñ Mbacke daan ci taxaw tuuti ndax sëñ Abdoulaye dafa defati loo xam ni tey jii def xam ngeen ni concours tëli alxuraan bi seeni ko tàmbali na keroog àllarba waaye tey dañuy nin ko daan doxalee buñ ko ni doxalee tey ndax tey bésu alxuraan boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk dafa am ca Grand Théâtre nin daan xëyee di déglu xale yi ñuy jàng alxuraan fee ci institut islamique tey jii duñ ko def dañuy wuy ñun ñëpp grand théâtre mu ànd ak Massaer ak Pape Gueye ñu ngi noonu boole waaye juróom fukki sëñ daara yi nga xam ne sëñ daara bu nekk indi nga sa candidat ren juróom fukki sëñ daara yëpp itam ànd nañu sëñ Ablaye ja ñëw sëñ Ablaye xaadimul xuraan jërëjëf yaag sëñ Seck ndamal ndamal alxuraan ngeen te te dangeen di firneel saa su nekk jagle bi nga xam ni cheikhul xadim am na ko ci alquranul karim jërë ngeen jëf yàlla na leen yàlla yàggal te wéral leen bu baax a baax délégation bi jógee daaray kokki sëñ Moustapha Diop euh, sëñ Moustapha Wayal ak ki nga xam ni mooy euh, sëñ Makhtar Deyman Diop ak ki nga xam ni moo di sëñ Modou Antaloo ñoom ñoo jógee kooki ci sëñ euh, Modou na sëñ Makhtar Naar sëñ jërëjëf sëñ Mbàkke sëñ Sumbul si la ñu ngi koy sant bu baax teew na moom it Euh, sëñ Cheikh Awa Balla Cissé moom it ñu ngi koy sant moom it teew na sëñ Abdou Xuma Caaroy euh, automobile ñoom it teew nanu euh, Baye Daam Diané moom it teew na jàngal ñu bare Baye sëñ Mamor sëñ Mamor Dieng waaw Karo fee ca parcelle moom it teew na ki nga xam ni itam moo di oustaz Ahmed Fall représenté ki nga xam ni mooy imaam sëñ Njóogu Fall teew na sëñ Alioune Fall noonu ak euh, ki nga xam ni itam mooy sëñ Ibrahima Sène doonoon assistant professeur Iba Der Thiam moom it bokk na ci ñi nga xam ni teew si nanu ki nga xam ni itam mooy kilifa bërëb bi di directeur Grand Théâtre monsieur euh, Assoumane Sané moom it euh, teew na ñu ngi koy sant bu baax a baax ci jàppandal yëpp ak madam jàlloo mi nga xam ni mooy assistantam ki nga xam ni it mooy sëñ xalifa Fall teew na sëñ Ousmane Gaye sëñ Mouhamad Diané sëñ Moustapha teewal sëñ Modou Lo Ngaabu moom it euh, ñu ngi koy ziare bu baax sëñ Moustapha Sylla mooy meeru Ñaaxeen moom it teew na ñu ngi koy sant moom it bu baax ànd ak délégation sëñ Abdourahmane Sylla teew na moom it sëñ Cheikhouna Xuma moom it teew na sëñ Xaadim euh, Sylla espace déco moom it teew na ak sëñ Xaadim la Aziz bi nga xam ni moo jiite association commerçant industriel yi moom it euh, teew na sëñ Ibrahima Badiane euh, sëñ Cheikh Lo ak sëñ Abdoulaye Lo mën nañu yemagum foofu macha allah euh, sëñ Mbacke waaw sëñ Thierno Lo waaw super céramique waaw moom it teew na association ndey daara yu parcelle waaw association ndey daara yu parcelle Euh, Touba Parcelles waaw ki nga xam ni mooy soxna Umu Kalsoom euh, Fall moom it euh, teew na ànd ak délégation mbag kon ba ca kanam incha jërëjëf sa njiili jërëjëf ci mbokki daara yu baax yooyu nga lim te xam naa ab jukki rek la ñi nga xam ne sëñ Jili jotagu leen a tudd te ñu nekk ay délégation waaw. waaw xanaa lenn rek jéggalu. Hmm. xam naa sax ñoom daan leen tudd. waaye samay sëriñ la ñu di sunu ay kilifa di ay borom xam-xam yu mag ñoom it di njabootu sëriñ bi nekk ci jataay bi. sëñ Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadoud mii dama ko war a tudd moo sëñ Mbacke Abdourahmane mii ak ñu demee ne ñoom euh, sëñ Sam Mbacke ñoom sëñ Xaadim Ndiaye ñii ñoom ñëpp wax dëgg yàlla war ñu tudd ñenn bàyyi leen xam naa ni sox daan ñëwaat ci commission bi waaye moom mënuma woon tudd te tudduma leen jërë ngeen jëf jërëjëf waa kañ jërëjëf euh, sëñ Jili ñaŋ bu Kër Ñang sëñ Jili Ñang sëñ daara fii ci Ndakaaru waaye sëñ Jili Ñang itam di yu jëwriñu Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni ñu ngi waajal juróom-ñeenti bi ren ci alxuraanul karim mi ngi ànd ak sëñ Lamp Diop ñoom it eh, ngi ci jataay bi eh, ki nga xam ne nag mooy soxna Ndey jàlloo na subaa couture moom moo ñawal sunu kaang fóore yi ba noppi la mu waroon fayu xaaj bi lan ko jox mu ni day jàpp ci bés bi ñu ngi koy sant bu baax mi ngi fii ci immeuble Touba Sandaga waawal faj li itam dañu yebal oustaz Assane Diouf di ku baax moom la DG Euh, sëñ Cheikh Ahmed Tidiane bu sëñ Sidi Lamine moom la yebal mu ñëw euh, sëñ Modou Khayra Niang moom it euh, ñëw na sëñ Abdoul Ahad Diouf ñëw na ñoom waaw ñoom ñoo teewal daayira mu xadamatul xidma ànd ak sëñ Abdoulaat mu sëñ Baara sëñ Mbaye Diouf Dia moom it mi ngi fi taalibi Cheikh Mouhamadou Mourtada sëñ Alaaji Balaay Ba moom it mi ngi fi sëñ Maam Góor Sëy mi ngi fi euh, sëñ Moustapha Lo moom it euh, mi ngi fi sëñ Abdou Ndiaye moo teewal Baye Souley Diagne moom it mi ngi fi euh, ki nga xam ni itam ñooy waa Touba ca kanam tuddoon naa leen léegi sëñ Mor Solang mi nga xam ni moo leen représenté fii ci Ndakaaru ñu ngi fi Mouhamadou Omar Cissé représentant sëñ Mansour Cissé xalifa Baye Amad Cissé Pire mi ngi fi alaaji daam baabu sàndaga mi ngi fi eh, sëñ Mamor Seck ci waa kër Baye Serigne yi ak sëñ Modou Bassine Seck ak eh, sëñ Mahmadan Seck ñoom ñëpp Baye Serigne ña ngi leen di sant bu baax a baax sëñ Abdourahmane Silla kazalika naka noonu sëñ Àll Seck waa jaamal itam sëñ Babacar siise ak Papa Seck ñoom ñoo teewal xalifa bi maam Abdou Cissé ñi ngi ciy jataay bi sëñ Aline Badara Seck moom it ñëw na eh, sëñ Makhtar Kare moom it ñëw na Masamba Diop bu Jamra moom it mi ngi fi di ku baax euh, kazalika naka noonu délégation bi nga xam ni ñoom ñoo jóge ci la Dramane sëñ si la ak sëñ si la ñoo leen teewal délégation sëñ Mor Xari Si ak sëñ Modou Bali ba sëñ Modou Si ñoom it sëñ Fallou Si ñoo leen euh, teewal sëñ Bakke yaakaar naa ni loolu moom mooy yi nga xam ni moo desoon ci délégation yi kon ñu jébal kàddu gi ki nga xam ni mooy euh, sëñ euh, Cheikh Awa Balla Gueye dox euh, sëñ Jili Ñang mu jukki yenn ci kilifa yi nga xam ne jot nañ fee teew ñuy extrait docteur bismillah sëñ Jili waaw jërëjëf sëñ Mbàkke dañuy tàmbalee ci ñi nga xam ni sëñ Mbàkke dañoo teew ba noppi indi ci seen wërsëg lu baree bare barkeeloo ko ci bés bi ñu jëkk ci tudd xaadimul xuraan sëñ Abdoulaye Dia sëriñ Babacar Guèye céramique sëriñ Moussa Diakhaté di foncé sëriñ Kab Guèye di foncé sëriñ Modou Diané Sandaga sëñ Modou Dieng wala Ñang di kenn ci bàyyi sëriñ maam góor Silla Cheikh Diané fleuriste soxna ki ne horizon plus ca Mbour El Hadj Modou Silla Ousmane Gaye sëñ Ousmane Gaye sëñ Modou Diop Daara sëñ Balla Seck sëñ Cheikh Fall Kane sëñ Modou Silla Bois Silla Bois sëñ Thierno Lo Karo sëñ Djili Silla bureau échange mook sëñ Basirou Silla sëñ Cheikh Amar ñooñ ñëpp mbooloo la moo xam ni dañoo teew sëñ Mbàkke waaye teewaale itam indiwaale xéewal yu bare bare barkeeloo ko ci bés bi léegi nag ñu war ñëw ci sëñ Xaadim balaa muy jël kàddu délégation bi nga xam ni ñooy waa kër sëñ Ndaam Abdourahmane Lo ñu tàmbalee ko ci kër sëñ Mouhamad Lo ki ci ñëw mooy sëñ daam Abdourahmane njabootu sëñ Basiiru Lo ki ko jiite délégation bi mooy sëñ Fàllu Mbàkke njabootu sëñ Abdou Salil Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Abdou Lo njabootu sëñ Ousseynou Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Moustapha Lo njabootu sëñ Mahmadan Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Cheikh Abdou Lo njabootu sëñ Cheikh Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Fàllu Lo njabootu sëñ Moustapha Lo Abdourahman di waajuru sëñ Xaadim mi ki jiite délégation bi mooy sëñ Xaadim Lo Masalikul Jinaan njabootu sëñ Lamine Lo ki jiite délégation bi mooy sunu soppe Cheikh Momadou Mourtada Lo njabootu sëñ Ahmadou waaw ak sëñ Ahmadou Mbàkke ma ñëw ci njabootu sëñ daam gu jigéen gi soxna maam say Lo ki ki ka teewal ki jiite seen délégation mooy sëñ Ibrahima Mbàkke soxna Fatou Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Abdoul Ahad Mbacke soxna maam Xari Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Fallou Mbacke soxna Aminta Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Cheikh Ndiaga sëñ Cheikh Ngaaya sëñ Cheikh Ngaaya Mbacke euh, njabootu soxna Naara Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Mortala Seck njabootu soxna Rahmatullahi loo soxna Rama Lo ki jiite délégation bi mooy maam Serigne Mbacke njabootu soxna Bintu Lo ka jiite délégation bi mooy sëñ Maam Mbàkke njabootu soxna Seynabu Lo ka jiite délégation bi mooy Baay Sëriñ njabootu sëñ Mbusoobe Buso ak euh, ki jiite délégation mooy sëñ Moustapha Buso njabootu sëñ Amdi Buso Bilal ki ka jiite délégation bi mooy sëñ Mbàkke Buso njabootu sëñ Cheikhouna Mbàkke Cumbuleen sëñ Cheikhouna Mbàkke leen dafa bokk ci délégation bi ak eh, sëñ Jili mbay Mbay Longoor waa Muxaddamaatul Xidma itam sëñ Mbàkke jiital nañ fii am na délégation bu leen teewal sëñ Abdulaat bu sëñ Maam Moor mu Cheikh Mohamad Fadal bi nga xam ni bu ko fi lii fekkoon kenn du ko fi ci jiitu ndax ni mu meloon ci alxuraanul karim ànd na noog eh, sëñ Abdoulahat Diop ak eh, ki nga xam ni mooy ki ànd ci délégation bi ñu ngi yëg yëgle itam ni kenn ci njaboot gi waaye di autorité itam di Soxna Awa Diop di ministre conseil auprès du président de la république son excellence Macky Sall waaye fan yii rek lii sax mooy génnam bu njëkk fan yi président def ko ni li ma la dénk ca France ak yooyu dama bëgg dama ciy boole laneen euh, ci réew mi wala ci réew yi muy dama bëgg taxawaay bu gën a ràññeeku ci daara yi ak euh, diplômé arabe yi kon ñu xam ni njaatige ci daara yi ak diplômé arabe yi kenn la ci njabootu Cheikhul Khadim ndax sëñ moo Modou Xabaan mi ñu dénk alxuraan gi fi ñu toll nii mooy borom këram kon ñu ngi ñaan gannaaw bii mooy yoonam génnam bu njëkk mu ñëw teewe si ko fii yàlla defal ko ci tawféex ba li président yéene ci daara yi ak yéene ko ci diplômé arabe yi yàlla defal ko ci lu kawe njortam